benn waxtu ci première chaîne de télé privée bu Sénégal yem ak waxtu xibaar yi mbokk yi dal leen ak jàmm di leen gërëm ci topp gi ñu door yooyu le xibaar wax ci lu jëm ci wàllum njàng ak njàngale ak waxtaan nga xam ne moo doon dox ci diggante ñi di way juru ndongo yi nga xam ne ñoom ñooy muuru fële ca école Sainte Jeanne d'Arc ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci direction ba daal dinañu ko amal yooyu le waxtaan fële ca inspection d'académie bu Ndakaaru bu nag ci kii di ñaar ci jigéen ngir nag ñu mën a tëral lu jëm ci kol ba nga xamante ne moom la direction bi wax ne mën nañoo bàyyi ñii di élèves yi daal di koy teg ci seeni bopp mbir mu ni mel nag waral ba daam mbocc di xam leen rek kon ba tey déggoo doxagul ci diggante ñaari wàll yu ñu teewlu kàddoom ci micro na si se waxtaan naam am na ca ministère éducation mais déggoo amagul woon parce que mi waxtaanu ministère ba dañu boddi woon parents d'élèves yi nga xam ñoom la seen i doom di muuru léegi nag euh, inspectrice d'académie bu Dakar moom Euh, parents d'élèves yi nga ñoom la seen doom di muuru ajuma bi ñu génn ñu waxtaan ba ñu jël ñaar ci ñoom boole leen ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wax nan la muuraay bi di euh, doxe ci école bi ak euh, nan la tissu bi di demee yëpp bu fekkente ne dugal nañ ci parents d'élèves yi te ñu fexe ba déggoo am loolu ñun dinañ ko rafetlu mais nag bu ñu bëggee taxawee fële jël seeni i décision bodd ci parents d'élèves yi seeni seen doom yi muuru ñun duñ ko nangu loolu moo tax déggoo gi amagul mais waxtaan yi mi ngi continuer waa ñun leenu jàpp mooy bu fekkente ne ñoom loolu ñu wax ne dañ ciy dugal parents d'élèves yi pour ñu xool nan la ñuy euh, waxtaane ba déggoo ci euh, ni xale yi doon muuroo te loolu mun a génn lu dul xale yi muuru comme nañ daan muuroo parce que kenn amul droit ñëw di soppi xale yi di muuroo loolu su fekkente ne déggoo nañ ci jàpp naa ne jàmm dina amaat ñu joxante loxo ñu xam ne Sénégal jàmm rek moo fi mën a am ñun nekkuñu fi pour di féewale kenn parce que fii ñun Sénégal féewaloo ñu ñun benn bopp lañ lépp ñoo ko bokk kon nag jàpp naa ne loolu ñu wax suñ ko doxalee jàmm mën naa amaat ñu fàtte problème bi xam ne lii lu fi jaaroon la rek jàll waaye ñun Sénégal jàmm rek moo fi mën a am te xale yi comme li ñuy def yàqalul dara école bi war nañ koo mën a def ci jàmm ak salaam bu ko defee ñu kon na ca lañ nekkoon euh, Sénégal gépp kontaan. mi ngoo ko ñu wàddu ci leneen ci biir xibaar yi wax ci taw yu bëri yi nga xamante ne nag yu bés yi ñu génn daal dinay wàcc ci senegal ci ndakaaru rawatina jur yi njombe ndax bu weesoo yàqu-yàqu yu muy jural askan wi ci ndox yi ci mbedd mi leneen li nga xamante ne taw bi mu ngi koy jur jamono ji mooy faat bakken tukkee ci li nga xamante ne moom moo di doon ni ba tax sax lu tolloog ñaar ci doomi aadama daal nañu ñàkk seen bakken ci ndakaaru ñette des kon ci biir réew mi mbir mu ni mel nag ba ñu ci bëri sampub laaj paratonnerre yi ñu ne jënd fan la féete ñu ànd ceeg leeralu Sayer Bodian taw yu métti ñu nemmeeku ci Dakar ak li ko wër andi na ci askan wi gannaaw mbënn mi indi ay tolof-tolof ñi dëkkee ci banlieue bi ak li ko wër dënn bi daan na ñëw ak ay mbiram yu tiis ci ay bés ñaari doomu aadama faat nañu ci Parcelles Assainies ak Sacré-Cœur Dakar muccul ci dënn bi bu sukkandikoo ci ñu seen xel màcc ci mbir moomu bu ñu xoolee ci wàllu installation équipement contre la foudre bâtiment administratif établissement yi di am mbooloo maanaam marché yi école yi jumaa yi ak yeneen lañu taamu ñu wutali biir euh, réew mi ca diwaanu Fouta foofe nag daal dina ñuy euh, amal ab euh, ndaje ngir waxtaan ci lu jëm ci accident yu bëri yi nga xam ne moom mooy am ci tali bi ñi ko amal nag mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci ministère bi ñu denk lépp lu jëm ci wàllub infrastructure lëkkaloo ci ak association bi ëmb ndaw yi bàyyeekoo ca diwaanu Fouta la ñu bëgg nag mooy ñaax askan wi ngir ñu mën a moytandiku lu jëm ci accident yi tukkee ci talib bi waaye itam sàmm bu baax a baax lu jëm ci kaaraange gi ñu teewlu ci noonu. nga xamante ne moom moo di Mamadou Camara ak kii di Ibrahima ñu teewlu seen i kàddu ci micro Amadou Diaw. tali du déversoir tali yi oto yi ñoo ci war a jaar wala nit indi taabalam teg ko ci kaw trottoir bi bi nga xam ne moom la piéton yi war a jël ki waroon jaar tali bi ja euh, ci trottoir bi dem ci kaw tali bi oto fekk fa mbëkk fa loolu moo am ci sunu tali donc euh, maa ngi invité euh, en tout cas sénégalais yëpp alliance des jeunes du Fouta surtout ñu sensibiliser nit ñi. sensibiliser seen naataango sensibiliser ci école yi les population euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci biir en tout cas ci biir réew mi importance su euh, sàmm tali yi importance bàyyi di occuper tali yi importance su euh, bàyyi di utiliser téléphone portable au volant importance takk sa ceinture de sécurité pour que nga samb sa sa sa sa sa sa dund. lépp li nga xam ne ne moom moo war ci kaw tali bi. nit ñi respecté ko suñ ko respecté wul daan yi war a tegoo si ñoom te nga xam ne loi moo ko définir wala règlement définir ko ñu teg ko seen seen kaw tant que yëguñ ci loolu nit ñi dañuy wéy di def lu leen neex ci kaw tali yi di euh, en tout cas indi ay accident di créer des difficultés pour des familles tout entières. Euh, télé yi ngir agression de la route ngir maanaam nu ñuy def ba ñaax sénégalais yi ñu changer comportement si ko télé bi. di wuy téléphone ngay dawal di wax ngay dawal ngay dawal ngay ngay saaga ngay dawal ngay ngay waxtu ngay dawal nga def leneen donc loolu bëgg attirer attention sénégalais yi ngir loolu wàññeeku même fekkee dindi wuñ ko sax ñu nga xam ne mënuñu leen wax ñu eggale wax leen loolu pour aujourd'hui tey sénégalais accident yi bëri na donc euh, luñ si xaar mooy également perspective yi dañuy dem gannaaw buy defee ndaje bi gin wàcc sur le terrain waxtaan ak sëriñ yi waxtaan ak kilifa aada yi ak diine yi waxtaan autorité yi waxtaan jeunesse bi pour ñu mun wàññi lii ni ñu changé comportement gars yi jàngaat ko dañuy dem ba ñaax sax éducation nationale ngir agression de route def ko si programme scolaire mi ngoog ca boobu lépp euh, jamono ca diwaanub euh, Monrovia nekk ca Liberia foofe nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, député yi fare ci CEDEAO daal nañu cay waxtaan ci ab ndaje bu nga xam ne nag ñu ngi ko jagleel lu jëm ci wàllu transhumance waaye itam yenn ci ay pëccoxoo yu dox ci diggante yi xeet file ci diwaanub Afrique mbir mu ni mel nag ginnaaw ba député CEDEAO yi sëggee ci mbir mi ba noppi daal nañuy ñaax nag képp nga xamante ne rek sa loxo war na cee dugg ngir saytu mbir mu saafara mën a am ci yenn ci ay xeex ñu nemmeeku ci diwaanu Pafrique ca Morovia ñu fekk fa nga xamante ne moo di suñu naataango ba ñu fa teewal Pape Sayer Mbaye ndar képp nañu séminaire parlementaire bu jëm ci wàllu transhumance doon tuxoog dandatu gu ñuy nemmeeku ci askan wi ak jàmmarlo yu faral di am ci seen diggante yi ñoom député yi ci kayit wu jot nañ ko ci tënk ñu gis ne munta ñàkk ñi séq mbir mi di ci amalay waxtaan waaye itam ñu ci amalay jotaay di leen ci député yi nekk ci parlement bu CEDEAO gis nañ ne coow yi am ci diggante sàmmkat ak baykat yi lii ngir ñu mën ci am saafara faaw kenn ku ci nekk ca bokk ñu dugal la ci waxtaan yi député yi dañoo war a lëkkaloo ak kuréel yi nekk ci nguur yi ngir gën a mën a ñaax ñii di sàmm yi ak baykat yi ak képp koo xamee rek sa loxo dugg na ci ci lu jëm ci wàllu transhumance doon tuxoog dandatu gi waaye tam fexe ba ñuy mën di waxtaan ngir mën a am saafara ci mbir mi. Casamance bi doon tuxu ak dandatu gu ñu nemmeeku ci askan yi lii ba fi mu toll nii ñu ci wéy di ci nemmeeku ay njombe yi ki xamle lu mel doon son excellence Moustapha Cissé Lo di président parlement bu CEDEAO moom mi nekk ci bopp penc mi lëkkale réew yi nekk ci digdigal bi di xam ne ne mbir mi li muy yàq dafay gën di bëri te wut ci saafara doonatul lu mën a ñàkk mbokk na ci ba tey li mu xamle ak càkkuteef ngir ñu mën a xoolaat xaatimu kayitu CEDEAO yi jëm ci wàllu transhumance ngir ñu gën ko mën a méngaleeg jamono. transhumance jàmmarloo yi am jóge ci wàllu transhumance doon xoolal ko bi mi ngi wéy ba tey di yokk itam nag di gën a indi ay njombe saafaral jafe-jafe yi ñu nemeek ci jàmmarloo yooyu doon ko lu mën a ñàkk te sax nag dafa doon loo xam ne faw mu am bu ñu bëggee jàmmarloo ak ñi di yi may wax ne kon mënta ñàkk ñu xalaat taxawal kuréel goo xam ne kenn ku ci nekk da ciy dugal sa loxoom ngir ñu càmbaraat xaatim yi nga xam ne CEDEAO xaatim na ko jëme ci wàllu transhumance ci noonu ñun suñu kuréel gi danañu ah, jéem a jokkoo bu CEDEAO saa boo xam ne rek li bi ñu doon mën. recommandations issues du séminaire seront par la prochaine session. ginnaaw bu ñu ndar képpee séminaire bi ñu doon waxtaanee wàllu transhumance doon màngaan gi di tuxoog daan dugg ñu nemee ko ci askan yi ñi di député yi nekk ci parlement bu CEDEAO fas yéene wéelu ba tey fii ci Monrovia di capitale bu Libéria ci ndorteel ay bés gi beneen jotaay mu doon session extraordinaire neer bu ñu fas yéene amal ca diwaanub euh, fële di Congo Brazzaville ngir nag indi fa lu jëm ci wàllu démocratie waaye itam saxal fa réew mu nga xam ne day dox ci yoon nag na muy tëddee kaskan wi mbir mu ni mel nag moom moo sabab candidature kii di Andrea Ngobe moom na ab ndaw la bu nga xam ne daal dina samp ndëndëm ci élection falum njiitum réew ñu dëgmal foofee ca Congo Brazzaville doxantu nag la amal file ci senegal ngir saytu lu jëm ci démocratie bi fii nee na nag jàng ci la bëgg ngir bu demee lépp lu nga xam ne gis na ko ci Sénégal mu mun ko yóbbu sekk na waxtaan ak Babacar Tambidou di wuyoo ci turu Andrea Gobe nekk candidat ci élection bi ñu nar a amal ci république bu Congo moom mi nga xamante ni moo nekkoon coordonnateur bu mbootaay di Sassoufit ji ñëwaat ci li waral bile candidature am. si en 2016 et même dès 2015 nous nous étions pour les principes de l'état de droit. si atum 2016 sax dañoo xeex ngir li nga euh, xam ne moo di état de droit euh, ñu daal di taxaw ci yenn ay candidats yu ci mel ni général Makoku ak ñeneen ñooñu nag tey ñu ngi leen teg loxo loolu tax na rek tey ñu taxaw temb bëgg a wéyal xeex bi te am yaakaar ne fii fii ak at ak genn wàll rek nañu am ndam bu ñu amee ndam nag daal di génn. ñooñu ci kaso bi ngir andi yoon ak yoonal ci réewum Congo bile. à ce que nous voulons notre objectif c'est-à-dire le rétablissement de l'état de droit. xeex lu jëm ci wàllum ger waaye itam ñoŋal démocratie ci réewam. ak yoon ak yoonal bokk ci li nga xam ne kii di Andrea Gobe dana ko xeex moom nag mu daal di xam li ni ngir am ndam ci li ni mel loolee waral mu daal di ñëwaat fii si Ndakaaru mu nekk fu nga xamante ne xam na ko bu baax a baax gannaaw bi mu fi jaaree bile candidat ci élection tàbb ci réewum Congo Brazzaville di ñëwaat ci lu ni mel. mais déjà parce que c'est au Sénégal que j'ai vu qu'un pays africain pouvait vivre en démocratie. bi ci njëkk bokk na ci li nga xam ne ni man gis naa ko fii si Sénégal fi nga xam ne moo nekk réew ci Afrique bu nga xam ne mën nañ dund ci wàllum démocratie am ay alternance bu nga xam ne tey euh, Sénégal yi di woote kenn du leen teg ay métit ndax ñoom rek dañoo wootewul nguur gi te loolu bokk na ci li nga xam ne dafa am solo ci wàllum démocratie waaye itam bokk na ci li tax ma ñëw fi maanaam bokk yi nga xam ne am naa ko fii ci Sénégal te yaakaar naa ne tey ci yoon wi ma jël nekk candidat ci élection yooyu le sama jaar-jaar fii bokk na ci moo tax ma ñëw fii ci Sénégal. Euh, de votre vie euh, d'étudiant de de jeune professionnel. bëgg gi mu bëgg réew mu Senghor bokk na ci lii tax ba mu ñëw. ci réew mi lay waaye itam mu jàpp ni dafa war a soññi ay naataangoom yi nga xam ne ñoo nekk ci ndakaaru ngir gën leen a xamal seen àq ak yelleef lu ñeel wàllum vote ci loole nag Andrea Gobet na dañ ci def ay jéego ci bépp congrès bu nga xam ne moo nekk ci biti réew. Quelle alternative en cas de non vote des diasporas gis nañu 2016 même sax 2015 ñaawteef yi nga xamante ne euh, communauté congolaise bi dund nañ ko parce que ñoom amuñu woon benn pexe rek ngir euh, fësal seen naxar. mais yaakaar ni rek ngir loolu dañ ci réew mi foog rek nguurug Sénégal waaye itam jëriñ ñu dénk wàllum biir réew mi ambassadeur bu Congo jàpp ci ngir ñu xool anam mi nga xam ne moom la ñuy organiser li nga xam ne moo di élection bu diaspora bi ngir rek bañ lépp lu jëm ci wàllum ñaawteef rek mu bañ am. ci balaa 2021. si euh, d'ici 2021 rien n'est réglé. bu weesoo lool nag bile candidat ci élection tabb njiitu réew ci république bu Congo moom nag daal di ne ñaaw la li nga xam ne mooy ñaawteef yi am ci réewum Afrique du Sud. Babacar euh, Tambédou ñu gërëm ko mbokk yi daal di addu ci lu jëm ci euh, wàllu weneen ak li nga xam ne ñoom ñoo fare ci chapelle euh, Saint-Nom de Marie nekk ca diwaanu Yaraax ni ki démb nag ci dimanche gi la ñu daal di tëj ci lu jëm ci ab fête bu ñu fa doon amal di jubilé de diamant doon màggal nag lu yem ak juróom-benn fukkeelu at bu boobu lépp chapelle amal ko ci thème bu am solo boobu lépp mbir ci teewaay bi nga xamante ne moom moo di maire bu Hann Bel-Air waaye itam ci bi ka Ndiaye. la ko dale atum 1959 jàpp 2019 fidèle catholique u chapelle Saint Nom de Marie ba nekk foofe ca Yaraax di fêter seen 60 ans d'existence ginnaaw diir bu yàgg boo xamante ne bi topp nañ ko Yeesu Krista tey ji nag jot na ngir ñu taxaw kenn ku ne salaat li nga xam ne moom mooy ngëmam ci Krista bi c'est en temps de rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il a donné aux fidèles de cette chapelle qui ont entendu son appel et qui ont suivi, écouté sa parole et vécu sa parole pour constituer une communauté vivante. C'est donc un moment d'action de grâce, comme une pause dans leur vie, mais pour repartir. doomu paroisse bi di père Jean-Pascal Diamé nekk prêtre missionnaire spiritain dellu siwaat ci communauté ba mu fekkee baax ngir àndandoo ak ñoom màggal bés bile. ku nekk dafa war réfléchir mu xam ne man li ma war a def. ngir sama jàngu mën a dem ci kanam li ma war a def ngir sama réew ngir sama commune mun a jóg taxaw te taxaw ju rafet waaw ku nekk ci bànneex ñi nga xam ne ñu ngi ci coono ñu yëg bànneex ñi nga xam ne ñu ngi ci bànneex ñu séddal ñu jël bànneex gi séddal ak ñeneen yi communauté catholique ya nekk foofee ca yaraax daanaka ñu dugal seen loxo la ca lay doxal gox ba kaka xamle di meeru Hann Bel-Air tey bu fekkee ne gis nañu en tout cas fidèles yi di ñëw fii nekk ci loo xamante ne dañoo gis ne que dafa am benn impact ci développement Sénégal ci développement collectivité bi loolu daf ñuy gën a renforcer dañuy gën a taxaw aussi ñu bëgg a seede taxawaayu communauté catholique activité économique ni ma ko mën a waxee d'une manière générale Euh, mun naa ne gis nañ ci une forte présence chrétienne. jubilé de diamant wu chapelle Saint-Nom de Marie de Yaraax bi nag thème bi ñu ngi ko jagleel Marie mère et modèle soyons témoins de l'amour du Christ. gërëm ko bu baax moom Kajoor euh, Cissé mbokk yéen itam jaajëfal mooy ndax képp euh, xibaar yi jaajëfal ñi ci jàpp ba mu yemb yeneen i xibaar incha allah ak rédaction 2STV 19h ak 20h laata loolu ñu bàyyi leen ak sunu ay programme jaa jëf.